aka demi-finale demi-finale Sédhiou Sédhiou ku daan Sédhiou la ceinture rouge moo daan Sédhiou moo daan non non Sédhiou moo moo daan Kaolack na Kaolack aca arbitre sifflé deuxième demi-finale Diganté Seju à Kaulak. c'est du mené 1-0 du ceinture rouge Kaoulak ceinture bleue eh eh C'est eh, eh. du en finale Sédhiou en finale déjà Sédhiou Danna na 2-0 arbitre Siflena, deuxième combat arbitre Siflena. troisième combat ci demi-finale yi diggante à ak Kaolack wayé mené mo mené 2-0 Sédhiou Senti rouge. Kaolack ceinture bleue. Hé hé, quelle prise prise na ko eh, eh Sédhiou mais xale yi dañoo mën a bëre Sédhiou daan na ko Sédhiou daan na Kaolack trois 0 eh Fatick dugg na ko Fatick Sédhiou na Kaolack 3-0 acca kon dañoo juum kawlak moo gagné Kaolack moo nekkoon seen tir rouge waaw Kaolack final Kaolack moo nekkoon ceinture rouge final Kaolack Fatick lay doon derby daaw noonu la woon Kaolack gagné ndax day confirmer ren wala Fatick day jël revanche am. loolu derby la loolu dimanche lay leer.